bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen tàmmul seen bopp sénégal mi manque pétrole gu njëkk démb la yéenekaay yu bari xëyee vox populi ne jàppale ni kay sénégal li ko dalee démb producteur de pétrole la journal ba ne manque nanu sunu pétrole ba njëkk ca champ Sangomar yéenekaay bi ne bés bu mag la ci sénégal waaye it ca Woodside ma liggéey liggéey ba Thierno Ly mënu dénk Petrosen ASP di wone yaakaaram ca booba lépp liggéey ni yaakaar nga yépp ngi ci réew mi ndax pétrole bi nu manque démb teral quotidien ne bés bu rëy la ci Sénégal yéene kaay bi ngi jëm ci production boo xam ne lu mu gàtt-gàtt téeméeri junniy baril dana génn bés bu jot di baril jour bés bi la jour ne yuuxub yaakaar gu njëkk gi jéb na sàngomaar joxe na baril pétrole gu njëkk démb yéene kaay njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye it joxe nay assurance ci génération yi ñëw nee dana def kéemtal ay jour maanaam téeméeri junniy barigo bés bu jot Woodside ci booba lépp journal di xamle ne pàcc gu njëkk ci liggéey booba ca Champ Sangomar ña nga cay xaar mu génnee luy tollu yi doon dàq liggéey booba nag te taxoon Macky Sall sàkku ñu audité waat mbir ya Bassirou Diomaye Faye nag yéene kaay bi ne lu tegu ci kanamam mooy renégociation contrat pétrolier gaz yi yim fi waxoon ba ñuy ñëw ci nguur gi l'observateur naan renégociation opération yooya ñu tudd nag ay risques yu baree ca nekk journal bi di fàttali li ñu daloon mu nu yëgalee ne nag ca liggéey ba fa mu dooree démb ba fii mu toll tey journal bi xayma ko ci ñaar fukki at yoo xam ne ñi nga woon diggante wër pétrole ba ko le peuple quotidien ne lii lépp nag bu amee ba nuppi nanu ànd wax jërëjëfe président la wax ci xëtam bu njëkk ne bu lëg lekkee na ko gërëmee cooy Sénégal manque na barigu pétrole am bu njëkk waaye yéene kaa bi nekk liggéey ba négocier contrat am a baax réew mi ba tey te loola mën naa bañ a jur jàmm buñ deful ndànk ba mu noppee ca artom googa source aadinu yeggee beneen artu bu jógee ci ay borom xam-xam gannaaw bi Sénégal génne pétrole bu ñëk Biram juuf di expert ci walu pétrole ma ngay fatali ni génn walu lay génn foofa investissement yi lanu koy fayé buñ ca noppé Petrosen compagnie bak état bu Sénégal séddoo la ca dess waye lepp nga aju néna ci lay génn barigo pétrole bëss bu jotté sangomar goga Umar Moussa moom di expert ci walu contrat pétrolier né pétrosen nak fimné da wara ubbi gëtam firi noppam waat ba dëgër fas yéné taxaw réew mé ki intérêt la mu digle nag mooy nanuy di wax ci lepp lo xamné mo jëm ci pétrole bi waye itam exploitation baak fépp fun ca mën a toll jamono ja Sénégal toll ci manque pétrole am bu njëkk révélation gi yeneen yéenekaay yu bare ñuy yëgal ne ndakaaru moom ndox amu fi journal bi ne jafe-jafe la seen oo teg askan woowa ay fan a ngi nii yéenekaay bi ne benn robinet xelliwut waral l'exclusif di woote wallu ca seen oo naan ko ndakaarook banlieue wa marang leen di rey waxtu woowa vox populi di ñu yëgal ne ONU di mbootaayu xeet gi wallu na Palestine ndax adopté bi ne jubluwaay bi mooy fay xeexub weer ba juddu ca Gaza yi ànd nañu di ko rafetlu Alioune Tine booba jamono ca boobale bi yéene ma ngay jubbanti kàddu yim fi yëkkati woon te waa Pastef ak seeni farandoo yu bari ñaawlu woon ko mu doon ca wax waxi état pastefien état bu Sénégal boobaleb jamono Walf Quotidien gis a ngi taw seen kaw jóge ca eurobond ak a décaisser ko par nguur gi wotoy nguur gi ñu bari jëloon muy toll ci téeméer dem ak moom libération ne tàmbali nañu koo rëbb yéene bi ne luy tolloo ñaar fukki oto delloo nan ko ba nu gaare ko ca état réew ay ancien ministre ay ancien chargé de mission waaye it ay nitu laalewul dara ak présidence de la république bokk ay sëriñ ba ne ñoo yor mbaa ñoo yoroon yooyele woto kenn ku nu njort ne daa yoroon ci woto yooyu di docteur Nafissatou Diouf journal booba yeneen yëgal ñu ne loolaa waraloon démb ñu convoqué ko ca gendarmerie waaye ba mu dajek enquêteur la mu leen wax mooy musuma yor auto présidence liggéeyew ma présidence mu ne nag li union des magistrats du Sénégal ni tekk yeeyu ca yàbbiwu ca ca jàmm ji ci Afrique ak CEDEAO rawatina journal bi ne ñu jàmm ju sax te yàgg la bëgg ngir ëllëg gu mucc ayib yéenekaay booba di ñu yëgal ne tey jii ministre Balla Moussa Fofana mi nu dénk wàllu collectivité teritorial dana dem ca Kër Massar ak Guédiawaye xooli nanu toogee ca tefes ba yéenekaay bi ne loola dafay wéyal liggéey bi Ousmane Sonko sumboon niki premier ministre jëm ci domaine public maritime domaine public maritime booba sus ak ñu yëgal ne liggéey ba ca premier ministre ministre sumb ma ngay dox bu weesoo ministre Moussa Balla Fofana mi jëm Guédiawaye Kër Massara yéene kaay bi ne ay réunion bés bu jot danañu ko amal ca primature démb doo nga ci mujj journal bi ne dossier yi nag cas par cas la ñu koy tere te maanaam dossier par dossier la ñuy xool point actu moom yittewoo dossier ministère de la santé ak ACD di marché gré à gré bi nu fi joxe woon mu toll ci milliards journal ba ne cour suprême ëllëg lay àtte boobale mbir ba joxoñ nationalisation ba am journal ba ne koppar ya réer mar sax ña nga toll ci téeméer ak ñaar fukki milliards yéene kay bi ne loola lépp nga ca ngelaw la dinu wax nak naka la état tégaté loxo boobale banque waye itam capital ba nu yokk ci 120 milliards te yef ye ya mujjeewut a soti journal ba ne loola lépp nak dara waralu ko jalgati gi nu jalgati charte bonne gouvernance di yoreen wu sel ñu dess ak enquête mi nu yëgal niki ki yeneen kay ne taskatu xibaar bi di Mansour Dieng génn na aduna demb yéene kay bi ne presse bépp sëngem ci ñàkk gu reey goga Mansour Dieng vox populi dinu fatani ne mo taxawalon icon magazine le mandat ne kenn kenn ci icône presse booba la ñu ñàkk muy Massoud Dia mi génn àdduna démb stade naan gannaaw bi Soudan jëlaatee bopp poule B bi démb Sénégal nag dana fa dem jongante ji jëm ci wàllu mondial 2026 ba ànd ak tiitaange gu rëy taxawaay gu rëy gi gànn gay am ci keroog ba Sénégal di jonganteeg RD Congo ak Mauritanie moo waral stade tuddee ko pilier des lions moom gànn mi am fanweeri at ak ñeent Gris Bordeaux nag sunu làmb ne juróom-ñeenti at a ngi nii amut ndam loola waral journal ba ne jonganteem ak Ama Baldé pression bu rëy la ca am moom Gris ca moom mooma sax la ñuy jeexale tey ñaanal leen kendal ak الدقيقة يقول لك إن شاء الله